ngi en yaa ngi main libre Ibrahima. El Hadj Ibrahima Diop man la Baye Djily. Ibrahima Diop ñu ngi lay siyaar an yaa ngi en direct àdduna bépp a ngi lay seetaan. yaa ngi màkkatal mu karam lan ngay wax axlu làmb ak jamaykee tey mu def. Ibrahima Ibrahima jërëjëf Ibrahima jërëjëf. jam ñu ngi lay ziar. maa leen delloo ziar. mbaa yaa ngi si jàmm. sant yàlla bu wér julli Seydina Mohamed sang-sang yi. ñëpp doon xaar le 11 décembre. Mhm. waaw ñu yegg si li waa ji waxoon rek loo bañ mu yegg bul ko jàppal bés. la 11 bi ñu ko jàppee yàgg na tey yegg si nañ si jàmm ñaari mbër yaa ngi nii war a bëree grand ay surprise yu bees sax lu musul am tey di am ci làmb ñu war a décorer. seen nawle oto Abdoulaye Diop xaas war koo def ma doon ci ma kontaan ci torop dañ sant yàlla nag jul Seydina Mohamed sang sang yi sant suñu ñaari waajur bu baax sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim Niass dañ sama papa sama turandoor Mamadou Mahdi Ibrahim ak doomam Cheikh Baye Mahdi nuyu waa Saloum waa Kaolack waa Karma Jabel surtout waa Touba Niane maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu communauté Touba Niane bu baax képp kuy doomu Touba Niane rek maa ngi lay nuyu di sàkku si yow ñaan di la ñaanal di nuyu waa Karma Jabel waa commune Karma Jabel waa commune Gént Kayi bu baax a baax a baax. combat wulli Calcio dafa yàqu loo ñu ciy wax andil ñu ay leeral. waaw dafa yàqu wulli moo dugal médical bu wane ne dafa feebar. bee passé Calcio la woon tey en tout cas ñun ay ndaw lañ di jàmpalanteeg ñoom pour làmb jëm kanam ñaanaluñ na kenn feebar képp ku ci yal na la yàlla may wér ba nga teneeg jàmm ñëw bëre sa sago ndax ñun yoonu ñu xolu kiñaan ñaanuñu yàlla bëri loo doom benn doomu aadama mu am lu ko naqari mu am lu ko waaw ku ci am feebar daal yàlla la yàlla may wér ba nga dellusiwaat ak jàmm suñu. kon dañoo xaar combat bi ci sa yeneen journée yi. non incha allah rabi dañuy bëree Wouly Calcio moom kenn du bëreel kenn te bëree woo sama combat bi waaw dama leen ñaanal nag ñoom ñaari ñu am wér ba ñëw remplir contrat bi tàqali koog moom si jàmm Wouly mi feebar ñu ngi koy ñaanal yàlla fëgg ba mu lan mooy secret bu organisé ñu gis macha allah ni waaw mooy jox ñëpp cër yéene ñëpp jàmm chaque jour damay wax rek lépp lu ñu yéene nit ci lu bon yàlla na ko yàlla këpp si ñun heure boo ñu gisee nit merañu suñu intérêt intérêt personnel intérêt jàmbur moo tax mu merañu ndaw lañ nekk ci làmb ji di liggéey teg suñuy mbir ci yoon waaye lii tey boo xoolee làmb ji xale bu ndaw a koy def dëggal ay xale ndaw amul benn société nationale boo fi gis drapeau kenn jàppale wuñu dara ñun xamuñu DER xamuñu Prodac xamuñu FONSIS kenn lañ xam sunu papa père ba ak sama directeur Mansour Ba ñooy jël seen loxo di ko def si ñun. di nuyu nag ñaar ku ci mel ni Kanji production ETDR dafa jàpp ci lamb ji Ibrahima Diop Kajoor immobilier Kajoor production dafa dugal loxoom ci lamb ji te bu leen nekkoon ñu ne ay promoteur lañ mun nañu dem def seen xaalis feneen waaye dañ ñëw soutenir ko te nit bu la defalee lu baax soo ko waxul buy lim ay noonam na la ci boole. barki démb gis nañ benn député mu toog assemblée nationale di xas ay promoteur waaye dama koy wax na delloo ci na delloo na delloo si xelam man xale la xale bu ndaw laa maa ngi nii tëgg làmb moom maire la député la musul dogal loxam ci làmb benn promoteur est-ce que jàppale nañu ay ndaw ñooy bàyyi réew mi dem defi leneen ñun mën nañ ko dem def su ñëwee di góorgóorlu suñu ñàkk di ko def ci réew mi ku ñu jàppalewul waroo ñoo xas man nag dama koy jox benn leçon mooy nee na ñun promoteurs yi dañuy utiliser ndaw ñi ñoom askan wi la ñuy utiliser ndax askan wi ñoo leen votel yóbbu leen assemblée nationale pour ñu xeexal ñu suñuy intérêt pour ñu défendre réew mi pour ñu def loo xam ne yar jikko yi defar jikko yi ñoom biñ duggee ensemble ba léegi xeex lañ fa nekkee dammi taabal këfi micro di dóor jabaru jàmbur yàlla nañu yàlla musal ci loolu ñun duñu ay député ay promoteur lañ waaye ñaanuñu yàlla door jigéen rawatina jabaru jàmbur di ko wéq bañ dégg ne dafa nekkoon en état ba perte na loolu loolu musiba la ci réew mi te ñun waxuñ si askan wi li ñu waroon def fekk leen ensemble leen fa ñiy bàyyi ñiy sàmmi nag ñiy jaayi daqaar ñiy jaayi ngooñ defuñ ko ñun ñu ngi mandu si ñoom di def suñu liggéey nañ mandu si ñun ñun dañ leen xaar moom mu ne état bi eh ministre des sports jàppale leen lamb wate leen bit wate pour lamb ñun loolu lañ leen xaar ci moom defu ko toog di ñu xas te nag ñun dégg nañ ne député maire la ñun nag xam nañ maire yoo xam ne duñu ñu jël lettre jàkk du ñu jël lettre ku feebar du ñu defal kenn soutien xale yi jigéen yi daf tànn benn bu seen lettre lettre yooyu rek lañ jël. ñun xam nañ dama ko ci ñoom. yaa baax yaa baax du weesu baax. ndax jamaïcain bi xale la nekk ci làmp mais ñun ñëpp suñuy moroom lañ ku waxal yàlla xam ne jamaïcain képp ku mu gis dina kaf ak yow dina kaf ak yow dina la dina waxante ak yow lépp ci respect man sama xarit la waaye maa ngi moom fépp fu ma nekk du ma waxal maam bu ma teewee du ma waxal loo xamante ne lu baax la dafa may sànni xeer man it fu mu nekk dama koy sànni xeer mais su ma wéetee xam ne nitu kese la gis doomu aadama yi kenn moomu leen nit ki tey dafa def loo xamante ne ak lu làmb ñëpp ci kontaan père Gora mi nga xamante ne photographe la waaye suñu papa la di suñu nawle di suñu papa di suñu nawle jamaykee décoré ko fii ci digg stade bi kon li papa Lamine Samba ne jamaykee jam na képp ku ne ci làmb tey ñu koy ñaanal yàlla defal ko gudd fan ak wér ba lépp lu mu bëgg ci làmb yàlla na ko yàlla defal lu kawe njortam Lamine ñu koy félicité ci oto bi nga xamante ne Ablaye Diop xaas jox na ko ko ñuy ñaanal Ablaye Diop xaas lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal lu kawe njortam di félicité Jamaïcain ndax Lamine tey bu àndeek Jamaïcain di liggéey ba dara dul dara mu xaar ko fa tey bañ jël oto yàlla jaarale ko ci loxoy Jamaïcain mu wàcc loxom dañuy félicité Jamaïcain mais dañuy félicité Lamine vraiment ñu ngi koy jàmm di koy ñaanal ñëpp ñoo xamante ne internet bi la jaajëf. jaajëf merci beaucoup merci beaucoup Dia jaajëf.